jaajëfal leen ci bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internet yu TV Sénégal jàngeen jëf ci teewlu bi. mbokk internet yu 5M TV Sénégal amati nañu mbégte ak bànneex di ci xibaar yi lee njiitu réew mi Macky Sall ñu ni kon du jàll benn yoon ginnaaw ca palais bi nga xam ni kon mu ni jeexal na takk mandaawam bi lee Sonko kay moo fay daal di toog waaye itam génne ñi nga xam ni politique moo waral tey jile kon ñu nekk ci kaso bi te loolee nekk lu metti te ñu xam ni kon njiitu réew mi dana dem rekk jóge ci pale bi ginnaaw rek kon Sonko bu génnee eh, ci kaso bi mu àndal mu mel ni kon ndam rek lañuy sàkku jëm ci première tour bilee ay kàddu Guy Marius Sagna la moom député bile. dañuy daal di wax rek kon ci génnum àdduna moom Fatou Kiné Diaga mile umu saw sax nekk ab waykat bu jege famille bi loolu daal dinay àddu kon jëm eh, ci kàddu yi nga xam ne moom ndaw sile daan na ko wax ginnaaw googee mu ni ko moom kay dafa doon bañ sax di jël billet jëm nag ci. ci màkk yi nga xam ne kon Wally Seck daan na ko joxe moom la mu doon ñaan di ko sàkku rekk mooy ni buy génn àdduna mu génne àdduna foofee ca nag bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofee ca màkk wala itam rek bu fa demee ba ñëw rek moom mu ñaan yàlla suñu borom bi kon daal koy jël ginnaaw aji màkk bi nga xam ni def na ko ba pare mu mel ni kon umu saw ma ngay xamle ni ñaan yooyee mu doon ñaan moom ndaw si de yàlla suñu borom bi nangu na ko tey